Euh, les juridictions euh, euh, Anita TV il ou elle en tout cas mi la cybercriminalité à ce que mu di koy <laughs> et nous ñu exactement plainte contre parce que directe <laughs> Eh, capitaine Touré. ngeen jégalu ma <laughs> ban ah, mais attaque les états direct ban capitaine Touré lay wax. bu ñu nommé Barke Demba Ndiaye. waaw ASP <laughs> bu moom moo détourné ñaata. deux cent mille deux cent mille bëgg na tabax këru cité bi yaa ngi. <laughs> capitaine Touré bu ñu nemee Barke Demba Ndiaye sax amagul budget. deux cent millions budget de fonctionnement. il y a aucune orientation budget la ñu ba ñu def assemblée nationale. kenn amagul dara mooy xayma rek. <laughs> non mais Anita TV dafa ne capitaine Touré dem leen ngeen laaj ko ne am na xaalis moom ci budget mu xaar mu ngi di autorité yi ba ñu andi ko budget mu fonctionné parce que qu'on fa dara ancien directeur yi Macky Sall yóbbu nañu ba ñuy dem yëpp la ñu yóbbaale ah moom ngay ne dafa détourné deux millions. tii hmm. ni ni nii diggante bii Anita parce que bu faites ni que capitaine Touré il fait partie yoo xamante ne après deuxième vague wala troisième vague de nomination que c'est pas quelque chose comme ça. non moom yéex naa ñëw sax. moom sax yéeg na yéex naa ñëw. est-ce quatrième bi. Euh, loolu la mën na ay quatrième nomination quatrième vague de nomination wala cinquième de vague de nomination Tu hmm. ci la capitaine Touré doog comme euh, euh, directeur général de cette agence là de ASP. Un ah, membre la ñu ne taf taf moom moo di <laughs> moom deux à deux à deux à deux cent millions. deux cent millions. non franchement gis nga wax bu defee man nopp yi wër rek wax bu hmm. comment quelqu'un qui peut être nommé hier muy xaar un budget de déroulement de fonctionnement mu koy xaar ba léegi laata ñuy gaawante premier ministre pour mu dem def sa déclaration de politique générale comme ça le ministre des finances mën a jaar def euh, débat d' orientation budget gars yi affaires yi commencé di di fonctionner. Hmm. moom nga ne non déjà moom commencé wagul dara dara parce que toogagul man mënuma imagine le capitaine Touré boo xamante dara parce que nomeegul kenn la nommé au sein de ASP nommé les structures là mon capitaine Touré. Togo sa bureau Togo, toogagul nga déjà non dèjà ma 200 millions <laughs> ba a tabax er a euh, mi mi 300 <laughs> non non non non franchement rien mi quoi ah, voilà voilà. Anita TV mafia katch katch bu Macky Sall doon wax mo nek ni, ñom Anita TV pourtant ba moment Macky Sall di dérouler Anita TV di ko xalamal chaque information wala li waaj a Sénégal Anita TV mo de joxé les informations on parle de cette Anita TV là donc du moi wala du mom mom la. voilà. moo moo génne woon photo Sonko yi sa oto gendarmerie. dama ne man mii di wax ak yow. Anita TV mës na jël sama image man sama vidéo man. Hmm. li may wax ni bu fekkee amul. na ngeen ma amul pour sénégalais man mii di wax di yow. Anita TV mës na jël sama image man. di ko dugal ci réseaux sociaux sénégalais di ma saaga. oui ci manifestation bi transformons transformer en cadeau. le calme est revenu. voilà voilà voilà il faut que ma wax moi. wax ko victime même de Anita TV. Euh, c'était bien direct bu trois heures de temps. voilà ben, exact Anita TV euh, dagg lu mu dagg. c'était une direct de trois heures de temps bi ma def fii ci ci ci pont ci pont foire bi fii. Hmm. ci manifestation yi Anita TV dem jël sama vidéo dagg lu mu war a dagg dugal ko sénégalais di ma saaga man mii nekkoon ci ginnaaw écran yi ci micro yi di commenter les images Anita dag lu mu war a poste ko pour Sénégalais yi di ma man mii Arfan j'ai été victime comme capitaine Touré comme yow xam nga ni que le directeur de cette télévision man na ma jappalé ma ma porter plainte do xam na loolu ma porter plainte contre Anita TV ni que dafa tax euh, sénégalais Saga, ma man euh, Arfan euh, te alors que ku dem xol vidéo yi man du lolu la bëggone wax dafa dénaturer sama cadeau sénégalais di ma alors que ku dem seetaan vidéo de vidéo bi 3 heures du matin 3 excusez-moi 3 mm. heures de temps mm. di nga Arfan lu mu vidéo bobo mais comme Alita TV daf ko dagg jël lu muy pour sénégalais Sagama, moi sagama. alors c'est clair euh, donc war ko je crois que capitaine Touré à travers plainte mu

image bu top secret bo xamantene ben journaliste amul accès parce que moom dafa jappé boppam chaîne la wala journaliste. nee groupe de presse la Anita. oui oui oui may ma ma ñëw. doon am ci convention may ma ñew ñëw. Hmm. du dafa japp ni que presse la. ba bokk ci convention bi l'ONAS du dafa japp ni groupe de presse la mais Anita TV journaliste accès bu mu amul accès Anita TV am accès kérok ba ñuy japp Ousmane Sonko Koungheul yéen a ngi fàttaliku image oh, ci tu biiru gendarmerie ci tu bi ci TV moo njëkk a photo yooyu kan moo ko jox photo yooyu ngeen yaakaar c'est les gros bras yi wax ni <laughs> donc ñan ñoo moom Anita TV nañu dem dina leer en tout cas man bu ñu découvrir kan Anita TV man dinaa dem porter plainte mu parce que man ci vidéo bu mu def ci manifestation sénégalais di massaga waaw alors que du loolu ma laa bëgg wax sama cadre la transformer dénaturé ko man maa ngi xaar police bi mu def mu dem ba retrouver média boobu Anita TV man dinaa dem porter plainte contre lui waaw fa la ñu jëm ñun ñëpp les victimes les victimes di nekk ñoom ñoo am de gi léegi parce que nguur moo changé jub jubal égaline.

ñu xam saagakat yi fa lañu fété féetewoo ñun ñoom lañu bëgg mu leer. avant la cybercriminalité euh, c'est c'est c'est c'est c'est c'est penché euh, simir bu nu mel exactement donc est-ce que aujourd'hui euh, euh, euh li nga xam que modi di chance yi mi ngi fi pour daal wala mëna démanteler ki nga xam que modi di Anita Diop té ku su nek jëm nga tëbal compte bi mais euh, difficile justement d'y arriver ce n'est pas une chose aisée. la leen nag ba yoon def liggéeyam ñu loolu la ñuy xaar. mais pour gis ko mooy métti en fait. non non du du métti. on a une police de cybercriminalité on a une police scientifique. scientifique yeneen ak yeneen. alkaati yooyu dañoo xarañ de lu ñu bëggul xam duñ ko xam xanaa en moins que ñu ne la non non non mais lu ñu bëgg a xam billaay dinañ ko xam. te léegi du du du yàgg di ngeen xam Anita TV bi kan la. di dañoo activer pour cybercriminalité. Mm. xaar leen léegi léegi léegi yëf yi leer. alkaati yi cybercriminalité bi lu ñu am comme information ko lu ñu am comme formation non mais sëñ bi yow yoo xamoo sax lu ñuy def xaaral léegi yëf yi leer. alors c'est clair. léegi yëf yi leer. alors mi ngi noonu Amitaa TV fu mu mënta lakkatu léegi ñu lokkati ko. alors mi exactement donc Anita TV euh, mi non, encore une fois ma leen Nak, nag euh, ki nga que moo di euh, Cheikh Ousmane cher capitaine Touré moo d'a di porte plainte contre ki n'a xam que moo Anita suite cadre yi nga xam ni itam yëkki na ko jàpp leen la sûreté wala kon la cybercriminalité c'est autosaisi si wàllu wu Donc mel. top n'est ce toppandi si kanam yoon ak wàllu ki alors leneen itam si wàllug xibaar moi ki n'a xam